foofu la ab liggéeyam yam pour sénégalais bi may déglu xamul loolu mooy lan mi ngi mel na nga am sa xew dem woo xel comme baas ñoom mën nañ la programmeel xew mi baasal la ko ba mu nice waaye du ñoom ñooy ngénte bu bu dara xewee ci ngénte li waaw yaakaar naa ngénte li moom ngénte li moom bu neexee ak bu naqaree borom doom ji lañ koy laaj lu tax ngénte li neex ak lu naqari waaye yow ñu ne la sa ngénte li neexut nga naan woo leen ki baas baas bi loolu mooy tappale Cheikh Dibadou ministre de la ministre finance Amadou Ba Mamadou Moustapha Ba ak ak ak euh, Ablaye Daouda Diallo ñoom ñooy borom xew mi nañ génn wax ci seen xew te ñu yebal ci borom baas <coughs> ay sàcc lañ yu mag yu mag a mag sax waaw léegi nag beneen po beneen tomb bi nga xam ne moom laay jël mooy dañoo jëm ci élection législative waaw waaw ci la Amadou Ba ci la Amadou Ba ci la Amadou Ba sàcc la léegi nag dañoo jëm dañoo jëm ci élection législative muy élection yoo xam ne dafa mel ne son excellence Bassirou Diomaye Faye dañu ko jox fetal ne ko demal rëbbal ñu ba noppi ba a jël bal yi jox ko bal yi ne ko demal rëbb pour nga mën a jàmm yaakaar naa nag ku am ab rëbb di ko rëbbloo jox ko fetal gu baax am keneen koo xam ne amul fetal amaanul fetal naan ñëwul jox ma bali yi kooku dalaa bëgg a nax kon fet ki yor fetal gi moom la ñuy jox bal yi muy tiire di jam kooku mooy Bassirou Diomaye fay li nga xam ne nag dinaa ko wax fii mooy patriote yi am ngeen liggéey bu mat liggéey ndax kat 1999 ak tay jii ab parti politique mosul dem élection législative dem ak parteem moom rek loolu musul am élection yii nu gañe dañ koo gañe ak coalition bii yoon nag Pastef mooy dem ak bi euh, carte boppam suñ fi amee lu ndaw waa PDS ak coalition bi danañ génn na ñoo leen gañeloo woon pour loolu bañ a am nag 54 pour cent lañ amoon ci élection yii nañ ko ñoqali ba 70 pour cent pour ñu xam ne benn parti moo am point Sénégal. bu loolu jàllee nag ma doog a ñëw ci li ñu fi dajale ci ñaari baat rek mooy ah, li ñu fi dajale yaakaar naa ne. bu fekkoon te ne li am démb dafa amoon ndaje mi dafa amoon te loolu amul dinañ wax ne est-ce que liñ doon xeex jaroon na ko wala jaru ko waaye yaakaar naa ne man de demoon naa rëbës demoon naa kaso fii ñu baree baree bari dem nañ kaso waaye ku gis barki démb son excellence Bassirou Diomaye Faye discours bi mu def ca kanamu américains yi ci kanamu am àdduna bi yëpp dinañ xam ne ñun ñi doon xeex pour mu nekk président de la république liñ doon xeex pertuñu ko waaw ku nekk gis na ne ba fi président Ousmane Sonko toogee ak tey rigueur bi mu am ak ni muy yore réew mi ak démb li mu leeral ci kanamu askan wi lépp leer ku gis loolu di nga xam ne li nga doon xeex wallahi la sim ko te billaahi yàlla laay waat wallahi la asim bu Ousmane Sonko jëndoon galaas bu Ousmane Sonko jëndoon galaas ñu jóge deux mille vingt et rek ak garde bi mett mu ne gars yi kat xeex amul solo maa ngi dem nekk premier ministre Macky Sall billaahi Sénégal daanu ba faw wallahi la asim kon bu Sénégal yaakaaree ne dina dem sol ay dàllam ñu naan dina dem ak du dem fit ak ngor ak jàmmaaruk président Ousmane Ousmane Sonko moom fi yëkkati yi des na tuuti balaa ñuy euh, daldi di jàll ci film bi xam naa yàqamte ngeen ko gis waaye aussi il faut ñu delloo njukkal artistes yi nga xam ne ñoo jàppoon ci campagne bi ci ñooñu nag maa ngi woo ki nga xam ne moom dafa jël boppam bàyyile boppam Sonko muy Maya doomu Sonko maa ngi leen di ñaan ngeen tàcc ko ana Séni ak Malan kaay leen Séni ak Malan lay jox kàddu gi ñu introduire ko muy Maya doomu Sonko ana Séni waa ñu ngi ci salle bi waaw ñu ngi ñëw en attendant ma leen tey ñu ngi fi daje pour xool l'avant-première nationale du film Le Projet un film réalisé par Mamadou Ndiaye et produit par Cinevent SIA ñu daal di taxir lu tuuti rek lu yàggatul ñu daal di xool ce premier volet de ce film intitulé le projet alors Séné Malaw am leen voilà donc euh, maanaam eh, yaakaar naa ni donc liñ doon xaar mooy lii nga xamante ne moom mooy programme bi donc ñu ngi ciy wéy ñu ngi leen di nuyu en tout cas di leen gërëm di leen sant yéen ñi nga xamante ne boobu ak léegi yéen a ngi fii yéen a ngi toog te découragé wu leen donc ñu xamal leen ni am na film boo xam ni lu jëm si wàllum projet bi donc juste pour 45 minutes li nga xamante ne moom lañ ci wala bëgg a projeté ñëpp gis ko bu ko kenn nettali kenn bu ko kenn résumé kenn ñun ñëpp gisal ko suñu bopp. donc yaakaar naa ni loolu mooy lii nga xamante ne loolu lañ ci doon xaar di nuyu kilifa yi nga xamante ne ñu ngi fii parce que tey nekk na bis boo xam ni bis bu mag la si bis yi bés la boo xam ni patriotes yi ñoo ko moom bés la boo xam ni. grand théâtre moo ko moom donc ñu ngi nuyu ki nga xamante ne moom mooy PCA bu grand théâtre muy kilifa en tout cas di suñu kilifa aussi si aar bi grand ñu ngi lay en tout cas remercier di la féliciter sa position bi sa taxawaay baax na may leen ma ko loxo s'il vous plaît voilà donc bu ñu ne